sant yàlla parce que nga ñëw fu mel ni Bargny aussi mu ñëw nga gis nga yi ni mu mel mu calme macha allah ñu am ci yakim ne yëpp mbir yi dina ni mu commencé ni incha allah yi dina terminer ak dina terminer si jàmm te loolu la ñëpp di ñaan aussi ki yàlla dogal mu yor réew mi mu yor àdduna nit ku nekk foog nga am foo loolu du dañ ci àdduna mais boo faree pare li ci ëpp mooy nga ànd ak xel. Euh, ku déglu suñu maam yi bàyyi ko si maam Abdou li mu daan wax loolu jarul ñu la koy tegal dégg nga ko pare jël ci exemple rek nga xalaat ci nga xam ne lépp ci dal la war a xewe lépp si jàmm la war a xewe àdduna lépp dal moo koy defar fitna defarul dara te ñun réew mi ñun ñoo ko bokk ñun ñëpp kenn warul ci kenn warul ci kenn waru ci yee loo xam ne daf koy yàq te nit doo nit doo nit doo xool ni réew di demee nga xool xale yuy màgg ngeen ngi wara a jot example exemple boo xam tamit aussi exemple bu rafet la ñu mëna mag ci lool exemple rafet commencé na nag ñun ñi xam ñun ñoy mag ak suñu kilifa yeen jité ñu xam lepp ci si dal la wara xewé lepp li wara xew xew na paré pare te bis bu nekk li ci wara xew mo ci xew kon nak nañ ko nañ ko jëlé ak philosophie bu am solo rek bu baax ñu jël ko ci dal ci jamm ak salam yalla def ci ndam ci ki wara dem yalla def ci jamm ak salam ba mu jeex ci jamm lool lay ñaan Música